ñu teg ci Cheikh El Hadj Malick si Maodo keroog dégg nga ba mu wooyee nee na mooy baayam ñoom loolu lañu gëm. dëgg la te loolu mooy li am. ndax mooy taawu Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh waaye itam ñoo bokk ndey ak baay. Euh, ci mam Abdou ak maam Tabara. mooy caatu Alaaji Abdou di caatu maam Tabara tey. ni ko sëñ Ahmed Fall ak Tijani waxee léegi. Uhuh. waaw noonu la tëddee ci. fa kaana abuhuma saalihan jooju mm-hmm. man maam Ousmane dama ko xam waxuma sax xam-xamu ndax ñoom kenn du leen xam awliya yi taxta xibaab bi laa yaarifuhum xayri mm-hmm. waaye boo seetloo paaka mm-hmm. euh, li ci gën a ñëw mooy cat bi moo tax luy cat moytu ko moo tax ñu naan caat mm. caat mooy cat waaw mam Abdou mooy do mam Ousmane mooy doom bi mujj ci Alaaji Abdou ci kaw suuf mhm. moo tax moo tax mu amoon mbaax moomu ak yiw boobu ak leer bi parce que ba muy judd fekk na ala Abdou fees na dell ci leer suñu borom maqaamaat yi mu war a am yëpp ci yàlla am na ko euh, daam na ñëw fii sama kër mhm. wallahi al azim daam nañ tëju di waxtaan lu bare bare bare bare ba ba may def sama mémoire ci université Cheikh Anta Diop. na lu lu may nettali ci góor gi moom moom moo ko nettali mi ngi may nettali bés nii moom bokk na ci ni gënoon jege El Hadj ci bi maam Abdou di génn àdduna. mu ni am na bés ñu euh, xadara fii ci pom bi. ba ñu xadaraa ba noppi wadifa ba ñu wadifa ba àgg ci juróom-ñaari peru jëwhara nee na moom mi ngi dend góor gi nee na góor gi téye loxoom yuuxu wax ay baat. nee na jour boobu gi dafa xaal waxtaanul sax ñu dugal ko ci pantre bu ndaw bi foofu nee na mu ni maam Ousmane mi ni ko waaw mi ni ko dellool bunt bi mu delloo bunt bi mi ni ko sànq lan laa doon wax ba ñuy wasifa mi ni ko papa ay baati wolof de nga doon wax mi ni ko lu ma doon wax mi ni ko da nga ni ma di ni man maam Abdou ku ma yaakaar ëllëg yow mal xiyaam yàlla du tas sa yaakaar hmm. nee na alaaj bu du yuuxu ni ko maa ko wax mi ni waaw sëgg lu yàgg siggi ni ko incha allah incha allah incha allah ñetti yoon. waaw euh, beneen bi tam mooy dafa am sama benn xarit mi ngi lay dégg mu ngi Italie mhm. dëkkoon fii yaraax yor daayira bu nekkoon fii ci yaraax mhm. moom moo ma nettali de mi ngi may dégg mhm. euh, boobu sa daayira bi sama kër la woon maam Ousmane danaan jékki-jékki rek wàcc taxi amul woon oto amul woon oto day wàcc si taxi bi rek ñëw ñëw rek wàcc si daayira te buy ñëw ndeysaan léeg-léeg day guddee fu ñuy waaja a tëj wala ñaan rek ñu ni mama Ousmane agsi na maam Ousmane agsi na mhm. mu ñëw toog bu ñëwee ndeysaan euh, ñu waxtaan man maay dem maay fay taxi bi waxtaan ak moom mhm. dal na ma miraaran borom taxi bi ni kii mooy caatu alaaj kon fayu ma wallahi la azim mu mhm. ñaanal ko pour wan nëbboom nëbb bi nekkoon ci moom euh, mu ñëw ñaan ndeysaan bu ñëwee waxtaan tuuti waxtaan daamul waxtaan lu bari sax day way ndeysaan daarul xabibi moom ak sëñ Moulay si ñoo ci gën a jël cëru alajabdu ci baatu góor gi bu ñëwee way yaasal jalaal yi way tamurul layaal yi daarul xabibi ndeysaan ñu jël alal jox ko mu ni lii may def dama bëgg rek ngeen mucc seen diggante seen borom wallahi alazim loolu la daan wax léegi nag sama mbokk moomu Euh, ñu am gàmmu fenn fu ñuy dem muy wax ci maam maam Ousmane mhm. xëy na daal am lu muy critiquer ci moom mu jékki-jékki ñun ñu noppi maa ngi ko gis ñu ngi nelaw <clears throat> mu jékki-jékki rek tëb yuuxu billahi wallahi tallahi barki cheikh na ahmad tidiane chérif barki yontu yàlla bi ñu <clears throat> mu ni ma imam ma ne ko waaw boobu sax dégguma imam min mu ustaz Jabel ma ne ko waaw bi ma sëñ Babacar si moo ma feeñu léegi ci oto bi nee na gëdd ma ni ma naa la wax benn mbir maam Ousmane na ngay wax ci moom lu rafet ndax kenn mënul téye ba du doon sama xalifa mën sëñ Babacar si ki ma lay wax dina wootee actuellement mi ngi bëgguma wax turam moo tax bañ ñu ko tàggee cinq vingt et un mars bi ak vingt cinq mars mois de mars bi mhm. sama xel ci xis sa boobu la dem te nit la koo xam ni alal bu mu am bokk na ko nit ñi wa sharaful quraan te nitu yàlla la borom baatin la nit ku sell la nit ku yiw la tey tarixa bi ñoo ñàkk njabootu Seydi Hadji Malick ñoo ñàkk umma islamique ñoo ñàkk waaye maa ngi koy jaal tam association sopp da baax bi nga xam ni moom boobu moo nang moo nekkoon seen responsable moral mais saa yoo daan wax danaan la taalibe laa rek taalibe laa man lii dama ko tiil kilifa yi kon dal ñun ñi ngi am tiis jullit du am naqar ci lu ko yàlla teg waaye ñi ngi am tiis ci wala nabul nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juuci wa naqsim min al amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiri sabirin alladina ida asaabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñooñu lu ñuy am ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun xol yi fees na waaye nag eh, yàlla moom alaaji Maalik ñu jàngaloon hal min muzilin bi ma xat kaana yuriduhu rabbul ibaadi alayhim rabbi allahu ndax am na ku mën a dindi li yàlla bëgg ci ñun ndax mooy borom jaam yi ñu koy way ci taysir bés bu ne wa naafizun yàlla mooy wéyal xaakimun mooy atte fii naa ci ñun iraadatuhu ay nammeelam kama yashaau baayam alaaji Abdu wax ko bàyyiwoon xel ni bés dina ñëw ñu wuyu ji suñu borom ñun ñëpp El Hadj Abdou da ko bàyyiwoon xel dem na sax ba ñaanoon ni yàlla. Mhm. su may génn àdduna yow yàlla na nga méngoo sax jël sama ruux. wallaay doyloowuma ci Azraïl bi nga xam ni mooy malakul mawt El Hadj Abdou wax na ko ci ay abiyat. Mhm. iza jaa Azraïlu li ruuxi qaabidan fakun bi latifan yaa ilahi bila qahari تولى إلهي نزع روحي وخففا لنا سكرات الموت في كل ما يسري دول على جبديك واخ كون ماك نينكوي جال نيب ديكو جال عالم الاسلامي ديكو جاي مختار جاي الامين داخ وولريم لا خريطم لا سوبم لا di leen ko jàll yéen ñi ne ci plateau bi di jégalu. maa ngi doog a dugg si Dakar. macha allah sànq jokkoog naag professeur wax ko sama ngant. Mm-hmm. yow jokkoo nañu. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah merci beaucoup imam euh, Jabel euh, kaddu yi euh, rafet na c'est important. Mm-hmm. ci moment yi nit yi nga xamante ne xam nañu kii dëddu ñuy prononcé c'est important wala ñuy dund na moom yenn. yoo xamante ne euh, ñu ñu ngi jutoon ak moom alors xam naa du yàgg dara sax ñu yëkkati jotaay bi. Mm-hmm. mais euh, ñëw déggandoo li imam wax. en attendant avant ñuy seetaani beneen extrait bu ñu jëloon ci benn conférence euh, ñu daan déglu ko maam Ousmane mais ñoo déggandoo li nga xam ne imam Jabel wax na ko. Mm-hmm. Saïd li imam Jabel témoignage yi mu def yu rafet la yu baax la yu xamante ne bi ne baax na ci téléspectateurs yi ñu delloowaat fàttalikuwaat yooyu. parce que ñun amé ñom amé ñu lu dul yooyu def ay témoignage ci seen wayjur bëggal la ci yalla bëggal la ci sayyiduna muhammad taxawu la sagal la comme ni ngui koy waxé waxna ko légui bi may tambali sama wax ñom sag rek la sentu séntu ci ñoom te ñu dañ di ñu sagal ñom bu ñuy ñëw ci yow ci sa xew wala bu ñuy yegsi ci yow da ngay yaakaar ne dañ ko préparé mhm. waaye nag dafa naturel ci ñom du lu ñuy foo leen fekk lu mu xew-xew moo xam naqar la moo xam bànneex la moo xam lu mu doon mm-hmm. dañuy ñëw waaye nag da ko nàmp ci Cheikh Alxaaji Abdul Aziz radiallahu taala anhu mm-hmm. imam Jabel wax na ko léegi bi muy def thèse am mémoire am lépp lu ko lépp lu mu xam ci Cheikh Alxaaji Abdul Aziz rek maam Ousmane moo ko nettali te loolu la ñu lay doyee ah, <laughs> sëriñ mm-hmm. nee naa léegi sëriñ kenn ko lekk kenn du ko naan yëg lañ koy doyee ak bés <laughs> ah. waaw yëg rek lañ koy doyee ak bés <laughs> fa tabarakallah maam Ousmane nag macha allahu taala ci loolu la dund